nekk bergerie ci la war xoox ah ci la war xoox macha allah. waaw euh, tay nga ñew fi ci Saladam. waaw ñew fi tay ci Saladam bi muy 14e euh, édition. ok Euh, euh, ñu euh, defoon exposition bu yéeme yàlla daf ñu qualifié. ok ñëw fii Saladam muy c'est la première fois. yéen a ngi doog a ñëw Saladam ñu ngi soog a ñëw Saladam. macha allah ñu ngi ñu ngi soog bokk Adam ñu ngi soog a qualifié tamit encore. macha allah ngeen ñëw tey def exposition macha allah. sama champion bi nga xam ne ba muy ndaw maa ngi moom. mooy ci kan encore. kii mooy Pilibo. Pilibo way oh, nekk 100 pour cent Saloum Saloum. ok yaayam nekk doomu Picasso. ok papaam nekk doomu Amdan. ok di Chérif. Machallah. allah Chérif nekk doomu Saloum Saloum. Euh, Picasso di doomu Saloum Saloum. Machallah. allah ñu boole ñaari setu Saloum Saloum. ok euh, moom muy judd. macha allah voilà. Machallah. allah euh, tey mu am ñaata mois. tey mi ngi si 19 mois actuellement nii. 19 mois waaw. Machallah. allah nga juddule ko. waaw maa koy juddule. macha allah ana yaayam. Ah, yaayam mi nga kër ga doomu Picasso la. ok waaw ak. Euh, macha allah tey mu mu am 19 mois. kan la andal, fii kan la kan. Eh, mi ngi ànd ak ñaari mbot eh, mbote ñaari mbote ay doomam lan. waaw mi ngi ànd ak ay eh, doomu doomu doomu nijaayam. parce que Pilipo seex la yaayam seex la. ok léegi seexam mooy passeport. macha allah ah, ñaari doomu passeport laa fi indi. ak benn doomu or or blanc bu Seydou Laye borom trophée yu bëri yi. quoi macha allah kii kan la kii ci kanam. kii mooy Pirinel. nekk doomu passeport. waaw mooy borom ah, tànn weex yow laa ci ah. la duggoon na si añal yi. ok duggoon na la. añal la waaw duggoon na si añal yi waaw. ok oh, mu am ñaata mois. actuellement nii mi ngi ci douze mois. douze mois waaw mi ngi ci douze mois. tête blanche bi. tête nuit bi mooy jongoma. ok nekk doomu or blanc. ok oui ñaata mois. mi ngi si trente eh, eh, mois. trente mois trente mois yi. ok moom sëñ Ndiaye moo ah ok grand Seck Adiaga maa ngi koy nuyu de passage. ok moom ko joxoon. macha allah. kële na ci ginnaaw. kële mooy Amilaay. Mhm. nekk euh, taw ci passeport. waaw mooy taw passeport bu jigéen. ok ok macha allah. taw passeport bu jigéen am ñaata mois ak ñaata porte. Euh, non actuellement nii mi ngi si euh, vingt cinq est ce que tey plus plus beau indi na waaw indi naa doomam ñaari mbote ah, ah, yi ay doomam lañ ah, allah ñu toll si ñaata weer non ay euh, un mois rek euh, lañ soog am lañ soog ku leen jur seen yaay moo tax sélection bi xawoon na métti parce que euh, nga yóbbu boo yóbbee mbote yi il faut nga yóbbaale seen yaay macha parce que rek boo boo yóbboo xar ak doomam rek waaw nga yóbbu ñeenti xar moo tax bii boo am na doom yi mag yi sax mais mënu ñëw quoi. macha allah macha allah ah, en tout cas eh, exposition bi rafet na mais plus beau tey ana euh, production am maa mi ngi mi ngi dem mi ngi mi ngi dem. non mi ngi dem bu baax a baax a baax. Uh-huh. Eh, c'est c'est fi ma tegoon passeport euh, foo ko raw la may plus beau di indi. macha allah parce que mi ngi def euh, doole. mi ngi uh-huh. def eh, esthétique mi ngi def odeur mi ngi gën a buddi xar yi. macha allah oui. mosul dugg concours. non mos na dugg jeune mal. ok yëm dugg jeune mal yëpp génn na si. si dix premières yi. ah macha allah waaw ah kon euh, plus boobu ba léegi maa mi ngi mi ngi ci formam euh, di liggéey lu rafet macha allah. Euh, tey bi bergerie ci Thilow Waxoox fan ngeen toll ci liggéey. non bergerie ci Thilow Waxoox ñu ngi amariore bo bu baax a baax ñu ngi yokk amariore yore am nañ fi benn doomu or blanc. Ah, moom it mi ngi produire. mi ngi xaar doomu pili booy rek ñu jóg mu mu mu di leen croiser leen. ok pour liggéey bi gën a jëm si kanam daal benn ci ci la waroo dal. Ah. ñooñu ñoom oke. ni ñuy ni ñuy yokkee élevage bi lañ gën a gis que eh, ni koy wàccee quoi. macha allah yokk rek. kon instant bi am na mal maal bu ko relevé. am na beneen maal bu ñuy wax Fira. Ah. Eh, mi ngi moo juddee woon eh, Sefila ba. ok doomu jongoma oh. bii la jongoma doomu. Orban la voilà. ah ok. voilà boobu ok boobu Oke. Ah, ngi ñaata weer. boobu mi ngi si 13 mois. 13 mois mi ngi kër gi ah macha allah kon kooku moo war li ñëw liggéey. waaw kooku tamit maanaam day xaar doom doomu Pilibo yi. waaw pour ku croisé leen moom moo ko croisé leen. macha allah en même temps muy tëb si yeneen euh, famille yi. macha grand liggéey bi rafet na. oui noo gisee saladam am na niveau. ok am na niveau bu baax xar yi rafet euh, ku si nekk daal ah, am nga ay visiteurs ba doyal. macha allah parce que euh, ñu ngi leen di remercier bu baax waa bureau bi ah, jàmbaar lañ. parce daanañ ñu ñëw ay ah, ah, saladam mais bii bii moom yaakaar naa. Ah, eh, kenn du ko fàtteeti. macha allah oui jërëjëf. Euh, kon daanaka joxe numéro bi adresse bi. ah adresse bi ngi nekk Malika terminus nekk si Malika en face kër bi boo ñëwee ba foofu rek atelier menuiserie aluminium bi nekk foofu rek boo ñëwee ba foofu rek boo laajtee Samba Mbaye rek man maa nekk foofu numéro téléphone bi ngi nekk 77 218 47. 96. Euh, jërëjëf jërëjëf nañ kontaan ci Plibo euh, di la joxaat daje xam euh, champion bu mu tudd fila fila laa ko tuddee kon fila bokk na bu ma moon fila ah, rendez-vous fila waaw